yéen gaayi bamba déglu leen muusa murit ba woon leen ndaw ak mag ak góor jigéen nañ wuy ji ahmadul mbakke magal gi laa leen di xibaar yéen xamul te di xibaar te nara dem di fa siyaar ngir jëmi ahmadul mbàkke billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala wajahal kalaami rachida wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki julli yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen seen Ndindy Actu ci biir réew bitim réew ginnaaw bu nu sante yàlla subhaanahu wa taala julli waaye di nuyu ak ziyaara Cheikh Mahamadul Muntaqa ibnu Sëriñ Basiir du ko ñaanal sun borom subhaanahu wa taala defal ko tawfiq ba naal yi nga xam ne am na ko ngir liggéey lislaam ci toolu maam Cheikh Ahmadou Bamba sun borom subhaanahu wa taala defal ko tawfiq ñun taalib yëpp ñu ànd ko moom waaye noonu la ni siyaare Cheikh Abdoul Fatah Mbacke ibnu Cheikh Ahmadul Fadal di ko jox nuyoo mu jotal na ko njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yëpp mbokk yi nga xam ne yéen ñu bàyyi xel seen plateau màggal niñ leen ko waxaan rek sak euh, guddi gi jot ñu dalal yenn ci ay borom xam-xam waaye ay borom xam-xam yoo xam ne ay ndaw lan yoo xam ne ci dëkk bi lan dëkk bokk ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tey ñu dalal Serigne Gallas Bamba Mbacke doon sëtu Cheikh Ahmadou Fadal waaye doon baaxis koo xam ne day gëstu ca xam-xam ak euh, xam-xam yoonu murit su ko defee incha allahu taala dañ ko jox mu nuyoo rek ñu dugg ak yéen directement ci waxtaan wi Serigne Fallou bisimilah. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayyidina mawlana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi imaanin wa islaamin wa ihsaanin ila yawmi din sëñ Thierno ñoo ngi lay siyaar bu baax di ñaan yàlla suñu boroom mu defal ñu tawféex bali ñu bëgg a leeral lépp ñu leeral ko di ndokkeelu jullit yëpp ci weeru teet bi nga xam ne moom lañu nekk te mooy weeru safar bala ca sëñ ba bëggoon lépp ñu am ko ci macha allah sëñ Fallou Mbacké sëñ Garas ba ci présentation bu am solo boobu suñ fallu xam nañ ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu dafa woote ngir ñu war ko sant waaye sant la ca jiitu mooy nga xam li ngay sant mooy lan ñu war a waxtaan incha allahu taala ci plateau bi xam-xam bi nga xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu bëgg na ñi nga xam ne ñoo aju ci ñoom ñu sàkk ko su ko defee am na ay maratib yoo xam ne dafoo wax ne ki nga xam ne day sàkku xam-xam te bëgg caa am yàlla bëgg caa njariñ njariñ nit ñi mu doon wax ju am solo mu commencé ca fal taqsidu arbaxatan hindabtida li kay yanaala taf li kay taallumi li kay tafuusu bi xatida su ko defee nga ñëw ñu ci abiyaar yooyu nga xam ne ñeenti ponk la nga xam loo sëriñ bi da wax te nga ne kuy sàkku xam-xam faaw nga làmbo yooyu ba noppi bu doog a mën a jëriñ ci xam-xam bisimilah sëriñ Fall jërëjëf sëñ Maam Thierno ginnaaw sant yàlla nuyuwaat mbokk jullit yëpp laaj bu am solo boobu nga laaj te mooy sëriñ bi ak euh, xam-xam sëriñ Touba nag dafa nekk koo xam ne moo doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yonente bi sallallahu alayhi wa li ko fi indi woon mooy mana na laa mooy jàngal jullit ñi mhm. maanaam xamal leen yàlla suñu boroom jël alxuraan dëxañ ko ci ci moom wàcce ko ci moom ina anzalna alayka zikra mhm. ne ko li tubayyina linnaasi maa nuzila ilayhim mhm, kon ñoom tam sallallahu alayhi mooy ki nga xam ne mooy xamal nit ñi alxuraan te it ñu xam ni euh, loolu mooy sunnatullahi fi ardi maanaam xam nga alxuraan du caaxaan ni nit ku ne nit ku soxla jàng wala nga soxlaa xam da ngay def directement ci alquran mhm. waaye mhm. yo eh, yonente bi la yàlla dëxëñ mbir yi mhm. muy xamal nit ñi ginnaaw yonente bi it nit ñu baax ñu noonu leen di saaroo am suñu borom bay wax ci alquran ne fas alu ahla zikri in kuntum laa taxlamun ahla zikri nag ñëpp mën nañ cee dugg mooy ñi nga xam ne maanaam yonente bi yeeg saxaaba yeeg taabixi ne ak ñu topp seen ginnaaw di yeesal diina ji ñoom ñëpp foofu la dugg kenn ku ne boo ñëw rek li ngay li ngay li ngay def. Mhm. ak lu mu mën a lu lu mën a doon rek. Mhm. jàngale lay tudd. Mhm. jàngale nag xëy na méthode yi man naa changé ci ci jamono ju ne. ak ni ñu koy defee ak yu mel noonu. ci loolu nag ci nga xam ne nii euh, doomu aadama doomu aadama jëmmi doomu aadama rek nit bala ñoo dugg ñu wax maanaam njëriñ la njëriñ la li xam li xam am. ci doomu aadama. doomu aadama rek gis nga bi suñ bi suñ borom a wàcc sayyidina Adama ci kaw suuf dafa wax ne wax la ma Adama asma ak kullaha xamal naa ko lépp te lam ko xamal loolu lépp mhm. lépp da cay dugg mhm. moo dem tur yi ngay gis nii ba ci su suñu tur yi ñu tudd man mhm. naa laa wax ni ñu tudd caméra yi ak yu mel noonu lépp da cay dugg mu xamal mu xamal ko lépp lépp la ko xamal kon xam importance boobu ba mu leen bëggee wàcc ci kaw suuf loolu la loolu la ñëkk a def muy xamal leen muy xamal leen nit nag li ko maanaam li ko tàqalee ak ak ak bàyyi ma mën naa wax ne ne xel xel la mhm. xel moo ko tàqalee ak bàyyi ma mhm. waaye nit kii li ko tàqalee ak bàyyi ma mës naa wax ni mooy xam mhm. ak ràññee maanaam nit day xam mën a moytu day xam mën a def loolu moo ko wuutaleeg bàyyi ma bàyyi ma li muy def du ko teg ci xam maanaam day day def lu ko soob nii rek wala lu këram nekk rek maanaam mu def ko kon nit ki su bëggee nekk nit ku mat sëkk. Mhm. yor ko yàlla bind mu mat ci moom. Mhm. faaw mu mhm. bu ko bu àdduna. mu jéem a soobu ci xam. ndax xam nga topp yàlla mënut a ñàkk ci kenn. ndax li tax yàlla bind ñu mooy dane wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun loolu moo tax ñu bind ñu. kon jaamu yàlla mënut a ñàkk ci nit te suñu borom kenn du ko jaamu ci ak réer. bala nga ko jaamu faaw nga xam. liñ koy liñ koy jaamu nii moom moom mooy lan. Mhm. moo tax xam-xam nag ci gàttal rek maanaam mhm. solo soos la am. Mhm. Euh, ci nit ki. kenn ko ne rek war ko war ko saab. Sëñ Tuubaa nag. bala maa dikk ci ci bay jooy nga xam ne day wax ci. maanaam nit ki bu dee sàkku xam-xam. maanaam jubluwaay jubluwaay yim ci yim ci war a am. yim ci war a am waaye bala dikk ci sëriñ bi. xam-xam nim nim nim meloon ci moom ak nim ko fonke woon ak nim ci nim ta tabaxe yoonam bi xam nga suñu borom dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu yónni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni wala si banse fil ummiyin rasulan minhum yallu alayhim ayati lu mu ci teg wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaaba maanaam wa yuzakkihim kitaaba taski yéen a maanaam taskiya mm-hmm. sottee teg wa yuallimuhumul kitaaba mooy dañuy da leen day génne mm-hmm. bon bon yi nekk ci ci ci xolum nit ki mm-hmm. soog def xam-xam loolu feeñ na ci euh, yonent bi sallallahu bi koy suñu borom waajal jamono ji mu nekk ndaw dafa yabal Seydina Jibril mu dindi xolub sa mu dindi ci xolam cërub seytaane ba ca nekkoon bi nga bi nga ko juddee ba noppi na la soo ko def ci moom la mu ci def sëñ Tuubaa maa ngi gis ni mhm. doon gi mu doon yonent bi sallallahu wa sallam moom yoonam yi mën na laa xam mhm. ne ci loolu lañ ko ci loolu la ko tabaxe mhm. maanaam dañuy wax ne ak tarbiyatu wa taxlim mu yar jàng yar ak jàngale ñaar ñaar lañ ko tabax kon day mel ni yar ak jàngale moom dañuy kii laa xumaam ñoom ñaar mënuñoo ñàkk mënuñoo ñàkk mënuñoo taxali ko moo tax suñ suñ Tuubaa bi muy woote yoon wi baat bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu njëkk a wax mhm. mooy rabbi rabbi mhm. mooy yar mooy mhm. faaw nga rabbi asxaabaka bil himmat bil himmat damay wax lu bëri ne baat a dégg ci yonent bi sallallahu wa sallam wax ko ba mu génnee ci ay nit tamit loolu leen wax rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi am lu ci boole faxat wala turabbihim bi darsi faxat kon mbir mi day tàmbalee ci yar nga yar nit ki ndax ba moom jamono bi muy ñëw moom moom bi fekkoon na fi loolu nit ñaa ngi jàng nit ñaa ngi am xam-xam mhm. ñaa ngi def lépp mhm. waaye day mel ni li leen li leen euh, woon mhm. mooy sóobu mooy sóobu mooy pratiquer mooy li li li ñuy jàng ñu koy jëfe ñu koy jëfe da ngay gis koo xam ne day jàng naan jàng jamono ñooñu bana arab am kàng foo lañ koy wax waaye bu jigee mën naa dem ca làmb ja wala mu dem ca nangam maag lu mel noonu suñ tubaa nag indi yeesal googu noonu mooy mbir mi faaw nga faaw nga xam danañ joxe ci misaal nii rek ci ne ndab li ndab bala nga cee def dara mm-hmm. lekk nit ki di ko mm-hmm. xemmeem mm-hmm. aw nga raxas ko ba mu set waaye boo ko raxasut li nga ciy def lu mu diis diis kenn du ko mën a jëriñoo waaw jaxasoo taq-taq yu mel noonu kon taq-taq yooyu faaw mu dañ sëñ Tuubaa nag foofu la la jaar nga xam ni paam tarbe nit ñi maanaam yar leen xam nga ñu bëri dañuy dañuy wax ni euh, jamono jim nekkee Mbàkke Kajoor di jàngale daa jékki-jékki bàyyi jàng ma gi ma noonu seet mhm. déedéet mhm. lam nekkoon mhm. ci njàngale ma ci la nekkoon te maam ko bañoon ndax am na ci bay joo xam ne leeral na ci leeral na ci euh, yu mel noonu na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko moo ko digal mu jàngal jullit ñi bi am ñu xalima naasa maanaam mu jàngal noonu la ko waxee ci téere ma waaye bu mën na rusu doon noonu la ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jox ndigal loolu kon moom ndigal la ci am dañuy wax ni woote wa daaxil ilallaahi yomb na waaye bi is nii nag moo jafe suñu tuwaa nag lool loolu la ci am kon yoon wi da koo teg ci xam-xam léppam léppam xam-xam dara génnul xam-xam gis nga bi fi waajuram génn bàyyi ko di ko buur yi àdduna yi maam di ko woo ngir mu jeng jëm ca buur ak yu mel noonu lu mu leen tontoon xaaloo leer kan li abwaab salaati taxons di wax waaye la leen mujj wax mooy maanaam wala suraadiya xayral ilmi wa diin maanaam xam-xam rek mu gis nga toujours mooy ñëwaat ca buur ya mm-hmm. Mm-hmm. bi ko tubaab bi di tumaal it mm-hmm. gis nga tubaab bi dañ koy tumaal ne day jihaad day denc ay ngànnaay ngir bëgg a attaqué gi ma noonu lam leen waxee mooy day jihaad wa maa qaalakum haqqun fa inni ujaahid waaye inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa toujours xam-xam bi da ngay gis ni maanaam day ñëwaat da leen wax ne ci xam-xam maanaam lay jihaad moo tax dañuy wax ni boo ku bëgg a xam Sëñ Tuubaa yar yu mu yoroon di ci di ci di ci liggéeyal yàlla wala yar yu mu yoroon rek mm-hmm. jàpp ne mooy xam-xam ah, képp ku nekk ci xam-xam ak di xamoon nit ñi ak di ko ittewoo mm-hmm. Mm-hmm. yaa ngi dimbali Sëñ Tuubaa boo ko yëgee boo ko yëgul képp kuy xeex xam-xam ak yu mel noonu nag jàpp ne yaa ngi xeex sëriñ maanaam sëriñ bi lépp lu mu tabaxit tabax lépp lu mu tabaxit da gis ni day wax ni maanaam ci xam-xam la ko tabaxee ak yu mel noonu wajaxal binaa ya tubaab bi nga ko wax loolu wax bi naa yooyu binaa ala ilmi mhm. na ko def mooy tabaxu xam-xam mhm. waaye yëmu ci xam-xam dong de mhm. waxamalin waaye xam-xam dong bu anta jëfe baaxul waaye waxamalin bi sunnatin xam-xam bu tegu ci sunna li ngay jëf ginnaaw boo xamee ba noppi ba mu ba ba xam ko xam gu wér day tegu ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu soog a baax waaye waxamalin bi sunnatin waxin mi ak lewet loolu ak lewet soog a ñëw maanaam nit lépp lu bu xamee li mu war a xam mhm. te tegu na mhm. te moom amul ak ak mhm. du mën a jëflante kenn maanaam day da nga gis ku jàng koo xam ne ku mu gis lu mu gis ne daa araam ku gis ne da nga war a dagg bopp bi ku mu gis ne ak kufur la du ma noonu ñàkk lewet nag mu indi la moo tax suñu maanaam ñaan lewet googu maanaam ci ci ay mbiram da ngay gis ni ba léegi yoo yoon wii damay misaal ne day mel ni nit ñi sëriñ bi sëriñ bi da leen woo. Mhm. da leen a woo ne leen mhm. kaay leen. kaay leen mhm. bi mu leen woowee da leen a woo ci ak texe. ci ak texe la leen woo. waaye da leen da dafa mel ne day leen texe googu nag. yoon wi may jaar ba ngeen am texe googu. mooy xam-xam. yaquulu. dana yaquulu ahmadu. ila sahaada. bi ñu leen woo jëme leen ci texe. ñu mel ne dañ ko laajee ko fooy jaar. ba bañ am texe googu ñun ñi nga woo. bu ñu leen yadduhul malaa. bil ilmi wal xibaada maa ngi leen woo jëme leen ci xam-xam ak jàmm kon day mel ni mbir mi yëpp rek maam suuf ci ak xam ci ak xam maam la leen woo ndax gis na ni loo tabax ci àdduna te tabaxoo ko ci xam-xam ak ci xam loolu day nax saay moo tax dañuy wax ni maam nit ki boo bëggee boo bëggee sànq aw nit mm-hmm. wala nga bëgg nit ki noonoo mbir mm-hmm. fexeel ba mu réere ko nit ki bu ko réeree rek mm-hmm. maanaam day nekk day da koy noonoo kon sëñ bi maanaam yoon wi maanaam ci gàttal ni ma ko wax mënoon na ci ay boobu la xam-xam am ci moom importance boobu tey noonu noonu la ko daan digle ay lettres yu bëree bëri bind na ko ci murid yi digal ñu xam lu seen farata ak yu mënta ñaa xam naa yooyu danañ ci dikk ci biir waxtaan bu soobee yàlla jërëjëf sëñ Fallou ci wax ju am solo jooju nga nga wax mel leen kon sëñ bi bu ñu bëgg xam la xam moom daa fekk mu sakk ko ba noppi. Mhm. ba noppi dicteel euh, ci gars mhm. loolu nga wax noonu ci abyaat yu am solo nga xam ne kon day mel ni sëñ bi avant mi woote woo xam-xam moom xam da koo njëkk nu yitteel ba noppi. Mhm. gis nga xew-xew yi nga xam ne daana déplacé ngir di ñàkkub téere waaye ab téere nekk fenn mu fexe bu jëli ko. ak loolu nga wax ne sëñ bi day xam naa ci loolu la ñuy ñëw sax ginnaaw boo xam ne moom sëñ bi nag am na importance ci xam-xam ba xam ko ba noppi. waaye programme bi nga xam ne moom la sëñ bi daa jàngalee xam-xam programme bi nga xam ne moom daa jàng nga xam ne bari na ay daar yoo xam su ko sancee la muy njëkk a def mooy wut ñoo xam ne dañuy njëkk a xam téere borom subhaanahu wa taala comme noonu euh, mhm. nga xam ne day sëñ bi da koo da koo lëkkale jëmmi xam-xam ak tarbiya mhm. méthode boobu ndax amoon na wàllu yàlla boo ko yoroon ku du ku du sëñ bi suñ tubaab radiyallaahu anhu xam nga sëriñ bi mhm. jamono ji muy dikk am di yeesal dafa dafa wax ni dafa dikk da mel dafa dikk jamono joo xam ne daa fekk comme ni ko waxee ci njëlbeenu maxaaliku niiraan wax ni dafa fekk li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon nag saxaaba yaag wata bi wata bi xalima wat siiratu saxaaba yooyu yëpp dafa raaf te loolu mooy maanaam maanaam ñu nekk xam-xam ak jëfe lu baax maanaam yooyu yëpp ràpp xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog di jàngal nit ñi naan naan leen def leen lii ak lii ak dafa defoon dafa jël li muy jàngale ci alxuraan jikko yi muy jàngale ci alxuraan doxuñ ko ci yonent bi sallallahu alayhi mhm. di xool ci yonent bi li muy def ak li muy wax mhm. ñu koy roy maam ñu koy ñu koy roy ci moom kon nag xam ne suñu tubaab loolu la dikk maanaam yees yeesalaat yonent bi daraan daraan wax bu def ñu koy gis ñoom it di di kii bu naan toog ci moom jamono ji ñu toog ci moom rek di di yëgaat seen borom mu leen delloo seen borom di nammaat di nammaat seen seen roo mooy li ñuy wax ak tarbiyatu bil xaal mm-hmm. maanaam nit ki xaalam nii ak melokaanam nii rek melokaanu nit bi rek. Mhm. da nga ciy da ngay yaakaaraw nit ki. Mhm. di ci yëg yàlla si mhm. maanaam euh, suñu borom. yonte bi foofu la maanaam jaaroon nag maanaam foofu la jaare woon. ak euh, euh, saxaaba yi. waaye daaw daaw toog nii nag di leen jàngal naan leen baa naan leen nangam ak. yu yu mel nii. Sëñ Tuubaa nag bi mu dikkee dafa wax daa fekk loolu yonte bi sallallahu alayhi wasallam ma nekkoon. ak yu mel noonu. yëpp dafa raaf. maanaam nga xam ne dafa maanaam dafa dee. loolu la dikk nag ngir. yeesalaat ko yeesalaat ko dëgg la. Mhm. waaye nag yeesalaat gi. Mhm. duggalu ci lu ci bokkutoon. dëgg la dëgg la génnawu ci lu ci bokk. génnawu ci dane mhm, di diinu siwa islaamihi laa yuhmadu hindal ilaahi wa bihi. macha allah wa bihi maanaam wa bihi mooy ci diine. mujjat bi diine kese rek lay waaw a mm-hmm. bi ngi ci diine maam jaaru ma di doon al ma di doon day am maam mu nga dóole ci wax day xasur mm-hmm. day am lu mu maam mm-hmm. lu muy lu mu signé fayee ndax day takk day ni taj jét gi mënta génn islam maam ci biir islam lay yeesala islaam day yeesala islaam ci biir ci biir islam kon ay mbiram maam dana génn ci islam benn da nga gis da gis dara wala dara nit ki yaay am problème mu xam fii lan sax ci sunna ak yu mel noonu te sëriñ bi damaa daa waxut buñ jëloon mm-hmm. euh, xar baaxu mm-hmm. xam-xam beeg yooyu yu mel noonu teg ko nee ak yàlla xamal mm-hmm. kawe itte comme ko waxee léegi kawe itte ci xam kenn mosu koo gis dama jox misaal misaal bu ndaw rek mooy am na téere yu Sëñ Tuubaa du tudd ci ay jamonoom jamono yi may jafe nga xam ne téere dafa daraañ jafe daraañ jët ay wër euh, wër ay dëkk wala mu yónnee ay ay ay vidéo te du am wala mu jaay ay yéreem ngir ngir bëgg am téere nga xam jamono jam defee mhm. xoola jamono ji jamono ji nga xam ne téere ni ni mu yombee nga mhm. xam sa téléphone man nga ko yor fee génn génn benn téere maanaam lu mel ne xaatimu tasawuf mhm. ak téere yooyu ba nii may waxee dafa jafe te jamono jooju jamono jooju la ko la ko am moom te ñu bëri fii amu maanaam amaguñu ko te tasawuf du si xaar ci yi mujj na ci la bokk imaamul xaw fii ñu suñ tubaab di rafetloo ba nii nii nii nii ñu ko xam bëriwut. ñi ko xam bëriwut dëgg kenn xamul fan la dëkk ak yu mel noonu ba léegi bëriwut. ci téere sëñ ñu bëri xamee. ñu ko. Mm-hmm. ak yeneen téere yoo xam ne maanaam ba day jafe day jafe waa jamono jii rek. Mm-hmm. buñ bëggee liggéey ci téere suñu tubaab wala suñu wala dara. Mm-hmm. dañuy am jafe am nasu maanaam euh, ba suñu tubaab di defee rek mel noonu. loolu nag li muy wane mooy kawe itte kawe itte maanaam ci euh, ci xam-xam léegi nag foofu nag ci la jaar maanaam yar yar yenn yar ñëpp mhm. ndax mhm. mooy génn seen xol mhm. xam nga ñàng am dañuy wax ne ab jàng jàngum kase xam-xam ki lay ki lay jàngal nii moom danaan la dana jox xam-xam bi boo jëfee baax na boo jëfut juróom nekku ci tarbiya gi nga xam ne nag moo taxoon saaba yi daan wax ne ñoom amul dara lu mës a dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci suba gi mhm. lu dul ne ci ngoon gi jëfe nañ ko suñu tubaab loolu la indiwaat mhm. Mhm. liñ daan dégg ci moom ci suba gi ci ngoon gi dañ koy jëfe ah, buñ xoolee ci moom gis ay melokaanam di di alquran di sunna moo tax may wax ne ñun ñu maanaam ñun murid tawfeex ji ñu am suñu sëriñ si ñun ñëpp dañoo judd rek maanaam judduwaale maanaam sunna loolu li ko tegtale mooy yére yi ñu tuddee ay suñu son yi boog xeetu mel noonu nga xam ni ñu bëri fi leen bàyyiwuñ ko xel loolu la yonent bi mhm. mhm. sa bopp joxe sa alal mhm. sa bopp gënal la euh, sa mbokk euh, sa bopp ak xeet yi xeet yu mel noonu maanaam noonu la sëriñ bi yare taalibe yi ànd ko ñoom maanaam ba réussite ci loo xam ne kenn mësu ko réussite ndax nit yàlla yaa weesu woon da ngay gis ne yu ci bëree bëri mhm. seen seen itte gën daa kawe seen gën daa kawe woon mooy fexe ñoom mun du jënti ko maanaam mun defaroo ñoom mun defaroo mhm. maanaam fi jeex suñ tubaab nag ay mu tudd moom moom dafa defaru mhm. ba noppi defare lim defar ci ay nit tarbee ci ay nit ñooñu génn ñeneen génn ñeneen kenn xamul lu mu toll moo tax dañoo wax ne maanaam buñ dee wax ci gën a si ci àdduna mën nañoo joxe Sëriñ Tuubaa muy muy exemple ñi génne ci daaraam tam tam yar leen mhm. te loolu li la ko li la ko xamal mooy bi mhm. muy jox maam si Anta mhm. Daaru di ko ko di ko ko may téeméeri nit la ko booleel te boobu maam si Anta amagu 19 ans na ko jàngal ko def def ci moom lépp bi mu yebal borom daaru mu wax ci kii borom daaru mu te te foofu damay wax ne sax sëñ bi fekkante adduna moo koy koo xam ne da ngaa sanc ab dëkk bala nga soxla nekk fa ndax dëkk lii moo koy sanc ay soo ko defee rek bu am ay taalib yoo fa nekk nga bokk fa dem kon moom am na beneen bët bu mu gisoon boo xam ne du àdduna mu jox ko maam si Anta kon day comme loolu nga wax noonu nga xam ne xam-xam rek moo koy téel dajee feeñ moom hmm. yi mbiri àdduna yi moom hmm. seen def doon moom dara ndax dañuy wax ni moom danaan daw nit ñi moom hmm. danaan daw nit ñi ndax boo xoolee dañuy wax ni bi mu ñëw bi mu ñëw Tuubaa wax ni daw nit ñi. Mhm. ak daw nekk ci loxo yi nit ñi moo mhm. moo moo fi indi. Mhm. bi ma dikkee ñaar laaj fekk. windee për ak saawe nag. bi ma dikkee ñaar ma fekk. mooy kuwir yàlla. ak kuwir àdduna. kiwir yàlla danaa ko danaa ko danaa ko mën ko yàlla ngi nii. lu mu soxla danaa ko jox. waaye bu bis baa bu ma yàlla fay bu ma xool bu ma xoolu bët. moo tax xëy na bis dañoo suñu bés yi tënk na ne fii Tuubaa ne. wax ci kër ne. képp koo xam ne mhm. mooy wax ñu yéeme ju kawe mhm. képp koo xam ne mhm. adduna lay indi man ngaa dem képp koo xam ne allaaxira lay indi allaaxira man ngaa dem képp ku yàlla indi nag toogal man kaa ne himmatoo lillahi xale wax maanaam toogal ku yàlla indi man ngaa toog loolu lañ dégg mooy mooy dalay jàngale kawe itte nit ki boo ne àdduna ne àdduna si na suñu mhm. uh, na leen a subu saxawaat yi amu njëriñ mhm. àdduna amu njëriñ wala laaxiratu xayr wa bu boo nee àllaaxira nag àllaaxira la fa neex mooy li ñuy tuddee àjjana ak yu mel noonu mhm. te àjjana mbindeef la mbindeef mu yàlla la yow nag bu fekkee yàlla la itteel bu yàlla xëyoon far àjjana mhm. teew dangay def li yàlla li yàlla bëgg waaw kay mhm. ndax moom la waxoon ne daxaa nii li iqdaami na bii lu mu wax xubbu saati yi bëgg jëmam ji moo tax ma koy def waaye bëgg àjjana wala ragal sawara maam maam taxul ma koy def moo tax moom àdduna ak lu ci biir lim njëkk génne ci xol ñi ñi muy ndax amul benn nit mhm. ci àdduna bu mën a am ci yàlla dara mhm. te fekk ni toqub dara ci bëgg àdduna war ci àdduna daa nekk sa xol mhm. mu ko loolu loolu mënta nekk ndax dañoo wax ni maanaam mbirum alaaxira ak àdduna moom dañoo juyoo maanaam ay wujju lañ comme ni ko suñu daa waxee ci biir nax ju ay wujju lañ maanaam ñoom ñaar mënuñoo mënuñoo laalante maanaam ñaari mbir la yoo xam ne mënuñoo ànd benn da bëgg yàlla wala nga bëgg àdduna waaye bëgg yàlla nekk ci xol bëgg àdduna nekk ci xol ñaar yooyu mënuñoo nekk faaw benn nga faaw faaw benn nga ci bëgg lim njëkk a def ci seen xel nag mooy ñu suti ko moo génn ci àdduna lépp lam it mu yar leen ci bëgg yàlla kese di dund yàlla di di sikkar tey xidma tey def lépp lu baax sori lépp lu bon sori mbooleem loo xam ne mën na mën naa dox suñu diggante yàlla rek mu sori ko moo tax damay wax ni foo laa daane la sëñ Bachir daa wax lu am solo dane maanaam eh, bu ñu wax li ñu suñ Tuubaa defal am ñu bëri nañu wax ni boo dee xool nit ki jamono ji boo nekkoon loolu suñ Tuubaa defal da lay wax mbiru àdduna lay wax mbiru àdduna boo xam ne maanaam ci ma ko mën a waxee am pool pôle nekk fee mën na la ko ëppale mm-hmm, mm-hmm. loo wax ci mbiru àdduna rek mm-hmm. ab tubaab bu gëmul yàlla xam nga mën na la ko ëppale kon suñ Tuubaa kenn du ko natt ci mbir adduna ak yu mel noonu déedéet moo tax suñ bësul dane suñ tubaab li ñu defal mooy mhm. fexe ba bu ñuy def bu ñu lu baax yomb mhm, am ñu mën lu baax day yomb mhm. bu bu ñu jëloon fii alal adduna li ci biir mën naa xëy joxe ko nit ñi di ko coow naan daa bëre ju mel noonu fàtt na ko am lu baax dina nu yomb kon loolu mooy li nga xam ne moom lañu suñ tubaab defal génne adduna ci xoli ay muritam xoli ay taalibam def ñoom yàlla macha allah sëriñ Fall Galas Bamba ci wax ju am solo jooju nga wax kon dañuy ñëw ci ginnaaw bu ñu sëriñ bi digalee xam-xam jox ñu importance xam-xam bu ba noppi xam nga sëriñ bi dafa bind ay téere ngir ñu mën a jariñu ci loolu. kon day mel ni ñun am na benn obligatoire boo xam ne dafa am ci ñun ngir sa xam-xam boobu ñu sàkku ñu war koo tasaare. léegi yan yan yoon la a aw murit mën a aw ba li sëriñ Tuubaa jàngale mu su ko téw ginnaaw bu ko téwéree ba pratique ko nga xam ne loolu obligatoire boo xam ne damay wax ne ñëpp war nañ koo liggéeyal sëñ Tuubaa ci ci jàpp loolu mooy liggéey bi ñu ñëw ci loolu tuuti. ci maanaam liggéey bi ci xam-xam ci ci ci tisaane mbirum sëñ bi. Mhm. loolu moom mooy li nga waxee mooy obligatoire la. Mhm. maanaam ci murid bu ne. Mhm. ndax murid bu ne. damay faral di wax ne bu ne. da ngaa war a jiima nekk. maanaam sëñ sa bopp. da ngaa war a jiima nekk sëñ Tuubaa sa bopp. maanaam kilifa kilifa gi fi nekk. mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha daa mhm. ne mooy kilifa murid yëpp mhm. benn murid wër ta xaar mën la defal wala mhm. bàyyil da nga war a nekk siñ bi da nga war a nekk sëñ bi ci defar def lu baax wax lu baax jiima lépp loo xam ni luy ab jullit bu baax def la nga maam nga def ndax euh, euh, nit ku ne sëñ bi jikkoy jikkoy sëñ sëñ bi mhm. war naa feeñ ci yow mhm. kon murid bu ne mhm. foofu la war a nekk mooy góor góorgóorlu ci maanaam ba du jël ajowoo sax dinaa ko bàyyi lii wala defal lii waaye day nekk jima sax ci ci ndigal fexe ba melokaan yi sëñ bi bëgg moom melokaanoo ko fu mu nekk ci àdduna rek maanaam nekk fa ambassadeur maanaam murid maanaam nekk maanaam nekk fa suñu xam ne lépp lu mu def rek maanaam moom lañ koy moom lañ ko xam damay faral damay damay daan wax ni euh, maanaam nit ñu baax ñi. Mhm. suñu tubaab fu mu nekk bëgg faa kenn. waaye nit ñu baax ñi fañ nekk. Mhm. xam nga ñoom demuñu waaye dañoo làqu dañoo làqu nii rek. dëgg olof moo ko mën a teg olof danaan mhm. fu ñu tukki baax ñoom danaan ah, dafa làqu. ñoom dañoo làqu. bàkkaar yi ñuy def ñun. moo tax yu bëri duñ ko gis. waaye buñ buñ nit ñi buñ bàyyi woon bàkkaar dañuy gis lépp gis lépp gis lépp gis lépp gis lépp nii waaw kay waaw mhm. moo tax ñu mhm. yow lépp loo moo def te murid bi da mhm. xam ne suñ bi ngi lay gis yow boo ko mënta gisit jàpp ni mi ngi lay gis te mi xam ne li ngay gis te ma nga xam ne mboolem nit yàlla yi dañuy xëppi seen bët di xool ñëpp kenn ku ne sa taalibe ñëpp ñu lay xool murid bu def loo loo war a def mhm. nit ñëpp dañuy gis na naan kii de taalibam suñ diw la ah, maanaam suñ ba suñ ba mhm. kenn ko ne maa war na ko bàyyi bàyyi xel mhm. farluwaat farluwaat bu baax ci am ci jàng moom li mu ci wax bay li mu ci wax buñ ko wax fii bu jëkke ak li mu tere aman nahaakum an taxalumi fa nañu taxalumi yooyu li mu wax kenn xamul nu mu murit amul droit ñàkk xam te damay wax ni foofu laay daane maanaam doy na sëkk ci wax importance su xam ak xamlu ci mhm. yoonu murit mhm. mooy yoonu géej wi mhm. yoonu géej bi bu ñu koy wax sëñ bi ba mu yebalee borom daaru murit ndar te booba affaire yi nekkoon lu jafe ci jamono jamono jooju noonu nga xam ni ki nekkoon ndar dafa wax ne keneen nekk Louga ne ko na dem song gi sëñ bi fa mu nekk ndegam dañ koy woo nangu nanguwut a ñëw bu àggee kër ga bu mu bàyyi dara mu ànd ak ay yu bëri maanaam yaa ngi dégg mu yebal borom daaru mu ndar bi mu yebalee borom daaru muuti ndar maanaam dama koy tënk rek ndax daa am lu ma ci gën a lu a itteel ndax daa xëy xëy daa xaw a gudd bi mu yebalee borom daaru muuti ndar ba borom daaru muuti wax ak borom ndar ba ak lañ ko doon gàllankoor ci wàllum eh, tradition ba ak xeet yu ba am ku ko booleel ngir mu war ko wan yoonu ngir mu demaat Mbàkke Bari wax sëñ bi ngir mu wuyu si te maam loolu guddi la suba war naa fekk mu àgg te bu àggul jafe-jafe mën naa am ndax day àgg mhm. léegi borom Daaru Muxti biñ ko yebalee biñ ko boolee am kiñ ko boolee kooko naan ko daa so daa soon nag yooyu di ko réer rek yu mel noonu mhm. ak ak xeetu mel noonu ba mu ko keneen ko ko ko ne ko ko yoon wi mhm. ba mu ko réeree yoon wi da da ko réeral borom Daaru nekk ci àll bi moom dong ñu réeral ko ci yoon wi gisul kenn te war naa gëj Sëñ Tuubaa balaa suba jot léegi loolu lan moo ko fa ci biddiw la tegtaloo loolu bu jàngutoon du ko xam. du ko xam bu xam bu xamutoon du ko xam. kon li koy tafusu bi ixtilaa googu. waaw kay waaw mhm. kon. Mhm. loolu dañ fiy jàngee importance bu xam-xam am ci ab murit mhm. ndax sëñ bi dafa def ci moom xam-xam jàngal ko ba mën a tegtaloo ci xam-xamam xam sukkandiku ci xam-xam ngir mën a agsi ci sëñ bi li soo am am solo la boo xam daal day tegtal loolu day tegtal ne gas loolu foofu da mu fi amoon day tegtal ne xam-xam ak wàccuwaay bu am ci ci ci yoon bi ak sëñ Tuubaa jërëjëf sëriñ Gass su ko defee Euh, fi ñuy tëjee waxtaan wi université bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo ko tabax ngir ndaw ñi ndaw ñi ci minute bu gàtt rek nan nan nan nan war a waajale ba université bii nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha da ko tabax ne su noppee bu mu laal suuf ndaw ñi nun ko war a waajale su ko defee nga bool ko kàddu yi tàggatoo yi incha allah. waaw ah, alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi digle woon ñett dañuy wax ne mbébét ñu fi bàyyi woon bokk na ci. Mhm. ab jaamkaay boo xam ne. bu yaatu lay dem xudus madrasat waaw bi haa yeesul asa wala dëxlu wala mm-hmm. Mm-hmm. Euh, loolu nag bi mu ko diglee ña jiitu woon bay nañu seen waar Cheikh Amadou Moustapha mm-hmm. moom jamonoom boobu maanaam yoon wi ñi fi sëñ bi yoroon daf ñoo xam ñoo fi nekkoon loolu jërutoon benn euh, kër yi benn jàng maag man ndax jàng jàngukaay boobu ñu ngi fi woon sa ba ci xilaafu Cheikh Amadou Faral moom it def na ci lu bëri. Mhm. taxaw mooy Daaru Maarif Islam ji mooy xam ne mënul def mhm. jumaa ji ngir tàmbalee ko loola. Mhm. ba njëkk ba ci jamono Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoul Ahad mu tàmbali université bi ba ci ba ci ñi fi jaar ñëpp ba ci Cheikh Amadou Mountakha mbirum xam-xam nag eh, saa buñ ko yëkkatee ci yoonu murit faaw day am jafe-jafe ndax loolu Sëñ Tuubaa ko waxoon ana bokk na ci mbiri seytaane dëggloo gu muy dëggloo taaliba yi mhm, mhm. xam-xam mhm. moo tax xuppe na ci wan naxaakum an taxallumi fa huwa xalifatul lahinil mujrim loolu loolu la ci wax léegi nag ñun ñëpp xam nañ ne sëriñ bi mun tax jàngukaay fii ci dëkkam bi ñu ciy jàngale li bi bëgg ak fim ak ak maanaam ay gis-gisam ak ay xalaatam ci doxalin yëpp bay maanaam ma dara. diine économique maanaam xeet yëpp. xeet yëpp dëgg la dara. man li ma gëm bu loolu amee nees tuuti. waxuma la Sénégal waxuma la Afrique. bi yëpp fii la ñu rootees. léegi nag loolu seetaane lu mu mën def dana ci dana ci a gàllankoor kon loolu mooy li ma waxoon mooy li ma waxoon léegi suñu xeex la ñun ñëpp surtout ñun ndaw ñi xam nga li gën a maanaam ewaar mooy sama mhm. Muntaxa mi koy mi koy defar mhm. am suñu benn waajur woo xam ne ne ci yoonu murid da ngay gis maanaam mag moo xam ne am na lu mat juróom-ñetti fukkaat nu tegal lu juróom-ñaari fukkaat mhm. tabax mhm. loo xam ne wér na ko ne waxuma la moom waaye ay doomam sa duñ maanaam duñ ci jàng duñ ci jàng ay doomam sa duñ jàng mhm, kon ndaw ñi la ko defar ñun ndaw ñi la ko defar ñun loolu ñoo ko war a téyeel suñu bopp li wax ne illaa kalimatullaahi maanaam bu mu laal suuf wërta laal suuf lum jaral noon yi mm-hmm, mm-hmm. lum jaral noon bu mag bi mm-hmm. war nañoo jaral maanaam lu ko ëpp ci jéem farlu nag li ci njëkk mooy jéem a farlu ci xam ndax feenee bu noppee kenn ku am murit wala ku jóge ci àll ba ñu ñëw di ñu jàngal ak murit de ñu ñoo fay jàngale te ñun bu ñuy jàngalee li ñuy jàngale danañ maanaam war nañ koo xam war nañoo xam suñu tubaab bu wér ak lam nekkoon ba mën koo tasaare ci àdduna bi kon loolu warteef la ci ñun ñu gën a góor góorgóorlu ci xam waaye suñu njaboot gii nag mhm. ñu gën leen tàggat ci ñu ah, xam xam ni ëllëg mhm. ñooy jàngale gi ci université bi ne ñoo fay jàngale ji ñu gën leen a farlu maanaam ci ñu xam mhm. Sëñ Tuubaa euh, buñ génnee li nekk ci moom lépp ci xam-xam mu ngi mën a baatin bi mel noonu ah, ci xam-xam maanaam léegi adduna bi yëpp maanaam maanaam ñu moom ko ci lu amul amul benn werante amul benn werante ndax li mu am ñu nekk ci moom ci xam-xam ñu mel noonu maanaam xajul xajul xajul loolu xam naa waaw jërëjëf di sant bu baax rek ci ne mm-hmm. di leen sant di sant waa nit mm-hmm. di sant bu baax ci mm-hmm. maam weeru mel nii buñ la boolee ci waxtaan yu mel nii wala fi dañ laa bëgg a dëmbal ndax lépp day dugg ci biir kentu sëñ wax yi ñuy wax jéego yi ñuy jéego déplacé yi déplacé lépp rek maanaam maanaam ak sant yàlla kon mu nekk weer woo xam ni Euh, euh, weeru sell la weeru njëggale la mhm. weeru baalante la mhm. weer la woo xam ne wax ni mhm. amul bépp murit boo xam ne jàppal na beneen murit beneen murit wala ku dul murit jàppal na ko dara ci xolam bu weer wi ñëwee war na ko war na ko baal war naa génn ci xolam lépp luy ak noonoo ak bañ nit ak lépp luy xeer xeeri jukko war ko génn ci moom ndax weer wi day présenté lu bëri ci ñun. wallaahi ay wax ni bi hmm. am na ay xeet yoo xam ne. ba seenu sëriñ liggéeyee ba ñëw. Hmm. Ah, ñoom dañ koo fay dañ leen fay leneen. Hmm, def ko yàlla. wala ñu koy gàttaloo dóor ay dóor seeni bopp. wala ñu koy gàttaloo di créer loo xam ne amul. sëriñ bi nag. daa liggéey ba ñëw. bàkkuwul. wanewul boppam. néewul sant leen ma. dane na ngeen ma sant la yàlla na ngeen dangeen dañoo woo ci ak sant mm. damay wax ni li ma yéem rek mooy mm, mm. Eh, sëñ sëñ bi daa baax ak ak këram ci lépp moo tax mu ne can li ko yàlla defal moom moom xeem na ci cantuk boppam te cantuk boppam moo tax nga gis ci ay bëytam du wax sant naa yàlla danaan nawaytu maa ngi koy yéene danaan ruum naa ruum naa sukkur la si danaan maanaam maanaam baat yu mel noonu mel noonu lay mm-hmm. jëfandikoo nga xam ne mm-hmm. xeem na ci ko boobu ba woñ ci mm-hmm. kon bu wéeru ñëwee seetaan nag jamono ju ne dina mm. in lëkkale yooyu ak benn mbir moo xam ne mm. nit ñi te la ñuy nekk ba fàtte cant gi a fàtte loolu te seytaan waxoon na ko ne waxoon na la xodini loolu siraatal mm. mustaqiim dina leen gàll dina bàyyi xel bu wéeru ñëwee lépp lu ñu nar a digal lu cant gi ñu suñ woo ak xéewal yi buñ ca dugg suñu sant dugal ko ci biir ak cantam nangu ñu lépp asalaamaaleykum wa mbokk yi nga xam ne ñoo doon bàyyi xel seen seen Dakhte ci seen plateau màggal ñu dalaloon sëriñ Galas Bamba Mbacke doon sëtu Cheikhoul Fadal euh, dégg ngeen wax yu xam-xam yi fax macha allah su ko defee noonu lañ ko wax ne Ndindy Actu fas naa dalal ay borom xam-xam yoo xam ne ay ndaw waaye dëkk ci dëkk bi su ko defee ñu ngi euh, ngeen xaar yeneen émission incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen gaay Bamba déglu leen. Moussa murit ba woon na leen ndaw ak mag ak jigéen nañ wuy ji Ahmadul Mbakke màggal gi laa leen di xibaar yéen ñi te di xibaar te nar dem di fa siyaar ngir jëmi Ahmadul Mbakke